man ngeen di jox xaaju ma Arafas Coly Faye dimanche loolu laa mujj nar neex la de mais man maa ci Coly Faye Coly Faye ëpp doole moo man mooy daan Coly Faye moo man moo ëpp doole leen leen laa a wax dafa non baal baal la ñuy def non non baal la ñuy wax Coly Faye moo daax xeex Coly moo daax xeex. Ada Fass du xeex. waaye yow yow yow yow. Arafas du ko coow moo bëri. loolu du loolu lamb yaa ngi. Arafas boo ko gën see ko. parce que koli la a mit koli fay. waaw. waaw. sa waay Coly ko dàq bëre Coly Faye ko dàq bëre moo ko ëpp doole moo ko dàq xeex ñun dañoo yàgg a seetaan làmb xam nga ñii dañuy tey la tey rek la xool làmb nit boo nit bala nga koy faral nit bala nga koy faral ah da ngay xool palmarès am fi mu jaar ba ak si fii Ada daan ban ban koy tëkkalee Coly Faye ak Coly Faye li fi def lépp waaye Ada Fass du dara xoolal xoolal lu nit nangu daa ko cee teg gara gara bi nag wuy ma wuy ma wuy ma Lamine dégg naa dégg naa grand nee na 3 lay teg. Ah? sama doole mayu ma ko de mais teg 1 million ci taabal 1 million laa teg ci taabal. Lamine. Lamine. kii xamul làmb. barke Seydouna Mohamed. wuy ma bu tegee 1 million ñàkk su tegee 1 million ñàkk waaw. Babacar day sóob barke alxuraan bu tegee 1 million ma teg 3 million ci Ada Fass barke yonent bi. andi indi xaalis kon de pare indi kon de man sorxo sorxo yi laay Amet xaalis baa ngi nii Amet Amet teel li ci Babacar yow loo teg kii lum ci bañu bañu ma ko maa joxe 1 million ak ak caabi oto yi 5 millions 500 laa ko jëndee. ci loolu na 1 million yow yow foo teg loolu. yow yow foo teg dama koo xool commencement ba fin du moromu Ada Fass. na 1 million mi ngi nii ah, boole ko ci. na 1 million ci Coly waaw. kon yéen a ngi si ak jaabatoo. ak jaabatoo Lamine Lamine Lamine Lamine Lamine yow yow xam nga làmb bu baax. Coly Faye bi muy bëree kéwél man maa indi kéwél Coly Faye barke Serigne Bamba doo ko yóbbu à day bàyyi xam naa li ma lay bu baax a baax a baax Ada Fass da daan ba toog ci kawam loolu man maa la ko wax. ok. Lamine palmarès yi duñ benn. palmarès benn. yow Ada Fass kan nga mën a jàpp ne daan na fi mbër poids lourd ban mbër la fi daan yow ay paa la fi daan Seydina Mohamed ay paa eh, fii laa taxaw di leen koy wax fii laa taxaw di bi laa une seconde combat bi du ko mat Ada Fass dana ko dóor dina xeex moom dina ko daan si jël bu set wecc ma man maa la ko wax borom tey ngay dee taxu do bid nanti nag tous Ada Fass kase eh lu xaay ta ñorogun jugub beeka laal Lamine waxoon naa la ko ci Franc dinaa la ko waxaat tey comprendre nga dun ay naataango lamb boolewu leen fii lan taxawoon fii ma leen Franc benn benn benn ñaata ak saam ñaata du benn gars yi def ko ay ay kaf bii nag mooy gën a leer ok. mais mais Lamine Lamine am na lu mu bëgg leeral tuuti nag Lamine dafa am leen loo xam dama ko bëgg leeral tuuti mooy suur bi nga ñëwee fii combat Franc beeg yooyu ñun li ñuy def nii dañ koy def pour ambiance. ok. Ada Fass kilifa yi ñoo leen di bu baax. Ada Fass kilifa yi. Ada Fass kilifa yi. man Ada Fass aller ak retour. kilifa yi ko dàq xeex. kilifa yi dàq bëree kilifa xeex. waaw may ma rek waaw may ma rek may ma rek may ma rek man làmb laa lay wax man làmb laa lay wax. waaw xaaral ma wax la wax la rek. waaw may ma wax la rek. dama man Ada Fass aller retour man làmb laa wax man damaa xam làmb damaa yàgg ci làmb man Ada aller retour boo ko aller ak retour qualifié man aller retour voilà. bàyyi leen ñun ñëpp xamuñu ne làmb làmb. làmb non non. la. isom ko ba jël ko. bu jàppee ko li rek làmb ji jeex. Coly Faye bu la Ada xam ne doo dërëm yow la ñuy lindaa. noonu la fa demee nag. noonu la demee Coly bu jàppee Ada Ada bu jàppee Coly Faye mu xam ne du dërëm barki Serigne Touba Mbacke. Ada Fass kese. billaay taalaay. Lamine maa ngi leen di ziaraat di leen béggewaat bu baax a baax a baax di wax ni vraiment Ada ak euh, Coly Faye combat la boo xam ne nii dama naan combat jànq la mais nag wax dëgg yàlla man nga paa mu Serigne Saliou su ma doon teg sama xaalis ci Ada laa koy teg te soo ma ko laajee lu tax ma wax ko waaw ndax Ada Fass rythme bii mu yor ci làmb lenn rek laa ko ci dénkaat na moytu yenn communication yu vulgaire yi comme ay tarkindaak curkindaak yooyu amul sens li am sens mooy na xam ne moom dafa nekk ci benn yoon boo xamante ne nii Sénégal ñu ngi koy bàyyi xel te ñi daan dund làmb Fass bu njëkk pour l'instant niñ toll ni ñëpp dañoo jox bopp Ada Fass Ada Fass na am conscience boobu ci boppam te xam ne avenir la àdduna ñu ngi koy bàyyi xel nag ñi nga xam ne ñoo toppoon Fass démb ñëpp tey ñi ngi topp ci ginnaawam waaw na moytu nag yenn communication yi ay wax yu vulgaire rek yooyu yëpp bu ci yooyu du yooyu ay jabam pour l'instant ni toll nii na xam ne moom mi ngi ci yoonu làmb làmb amal na ko njariñ làmb yaakaar na ko di ñaanal nag Ada Fass yàlla na ko yàlla may ndam ci barkeb Serigne Saliou Mbacké Ada Fass na am ndam Ada Fass yàlla na may am ndam jaajëf. Lamine Ada Fass Coly Faye loolu combat de mais Ada Fass ko gën a doon xale ëpp ko doole dàq koo bëre. waaw bokkuñu quoi mag ak xale bokkuñu carrière yi tamit du benn mais dafa da xale boo xam ne daa am fu mu teg bëtam am na lu mu bëgg si làmb waaw te da ko yaakaar ak Medina ak feneen ak feneen Ada Fass moom mun qualifier aller retour dax koo bëri ba bés ba nag da koy daan man la man la Ada Fass. 1 mètre 86 105 kilos. képp kuy doomu caaray ku sa yaram maa lay woo si làmb ji. Ada ma lay wax na yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jaam ragalu ma loolu foo taxaw ma fekk la. di Ndakaar yëpp le 26 incha allahu rabi arène dina ne Coly Faye yow dëggalal sa bopp. daw laaxu nga. yéexin bu seede nga doo dërëm boo dëgalee sa bopp dinaa la duma dinaa la da gars yi ah. PPV la seetaan lamb ji may daanee Colifay 2 jël bu rëy bu amul benn werante wan ko ko du dërëm puis fans Colifay 2 dawal jënd code bi gaaw seen affiche point com jàpp waaj ba coono yi dem ñi bi incha allah